ñoom ñaar jéggi na junior wàcc na na Tapha Tine dóor na Tapha a ngi dóor KO Sa laat bu baax yéen internet yi mbégte lay am saa su ma toogee fi di jàkkarloo ak yéen namoon naa leen loolu démb gisante wuñu dénkoon naa leen Mbaye Babacar sama lonko bi di leen kontaane leen ñu topp ci réew mi ak bitim réew su Mbaye Mbaye fayee daal di ñëw jukki leen li gën a fa si xibaaru làmb may baa ngeen nuyu. nga dénkoon leen ku mën a ku mën a ku mot dénkaane nuyu naa la namoon la nuyu bu baax a baax suñu xarit yi ñuy topp ci Leewtoo TV ñaanal leen jàmm ak salaam. damay ne saraax ci journal suñu làmb wala. waaw neel saraax ma ne ma ferenku laayu toog di la fa xaar. <laughs> damay bëgg Ilusador ak Okaya kenn du ñoom ci mim ri waaye bu ma nee saraax ci xew-xewu làmb nag. Mhm. fin de la maanaam tuf tufe lépp jeex na. Mhm. CNG daa mel bu fut yaram. nee daal léegi ku déconné mu ngi sa kaw ba tax na avertir rek nga xam ne mooy Pape Abdou Fall borom pop production Sa Thiès ak Moussa Ndoye sanction ba te ñoom njëkk njëkk dal Mbaye Babacar mooy écrit bi nga xamante ne bii mën na mën naa dal écrit bi nga xamante ne bii moom mooy écrit Kër Massar ak euh, écrit Yoff écrit Kër Massar yo mbooloo ak écrit Yoff suñu làmb moom moo moom moo wax loolu mais CNG nag dafa junj ne am na ñaari écrit ya nga xamante ne bii euh, dinañ leen sanctionné euh, suñu làmb am yaakaar ne écrit Kër Massar mbooloo lay doon ak écrit Yoff mais yemul foofu Sa Thiès Pape Abdou Fall ak Moussa Ndoye gannaaw ba ñu leen woowee déglu loo déglu leen CNG avertir na leen Pape Abdou Fall moom li ñu ko euh, reproché mooy sortie yi nga xamante ne bii moom la doon def Moussa Ndoye ak Sa Thiès seen combat bi jàll looloo tax ñu avertir leen mais ay avertissement verbal la. verbal mhm. maanaam léegi nag kaf gi jeex na dëgg des mhm. xale bu yëngu rek yett dal sa kaw ay ci bira seen moo génnee loolu loolu dafa leer naña ah, contre Bombardier le 31 juillet Balla quatrième revanche Balla Gaye nag moom mooy roi revanche heure bu demee jël revanche rek da koy jël saf ci Eumeu Sène wallaay ci digg yaa ngi fàttali ko digganteem ak Issa Pouye Issa Pouye dañoo njëkk a bëri Issa yi daan ko wante ci même saison bi la ñu bëriwaat mu jëlaat revanche bi mu war a jëlaat revanche nag ci ki nga xamante ne bii moo di euh, Bombardier Bombardier daanoon na ko ñu war a bëriwaat Balla Gaye wax nga ko mu nekk mbër ma nga xamante ne bii dafa mën revanche gannaaw ba mu defee ci li nga xamante ne bii moom mooy arène bi c'est euh, bi mooy bi mooy fukkeelu atam ak juróom-benn war a nekk vingt sixième combat am vingt sixième combat nekk mbër ba nga xamante ne bi heure boo bëreek moom buy booy bëriwaat ak moom li mu li mu li mu li mu mu ñàkkoon ci combat bu njëkk bi yépp da koy fexee rattrapé wu ci combat bi nga xamante ne bi moom lay war a bëriwaat ak yow ñu nar a gis Bombardier Balla Gaye combat ba nga xamante ne bi beneen Balla la ñuy gisaat beneen Balla Gaye numéro 2 la ñuy gis ba tax na kañu gisul Moussa Dia muy Coly Faye Issa Pouye Bathie Seras ak Abdou Diouf c'est vieux en perte de vitesse maanaam ñooñu daal ay pare ñoo war a génn ñoom ñett ñoom ñeent ñooñu waxuma la dugg ci biir saako yi waaye ci gannaaw saako ya ne xaw ma kan moo leen di tàllal loxo nag loolu jaaxal na ma ndax suñu làmb nee na Coly Faye ba mu gëjee daan ak léegi toll na ci fukki at ak ñeent oh. ñu ne ko kan moo ci des mu ne Bathie Seras fukki at a ngi nii daanul kenn ki nga xamante ne bii mooy Issa Pouy juróom-ñetti at a ngi nii déggul wiiw ki nga xamante ne bii moom mooy euh, Abdou Diouf tamit juróom-ñetti at amul victoire kon ñoom ñeent ñi waxuma la biir saako yi waaye ca gannaaw saako yi lan nekk xanaa du ñàkk Bamba jox leen may leen sens ba ak ñoom. Bamba Bamba waaw xalaatu ko sama papa jooju ci Abdou Diouf moom laay desandi ah après plus de vingt ans dans l'arène Abdou Diouf annonce sa retraite maanaam ginnaaw ba ko xale ba ca Fass daal Abdou Diouf na neen dee génn làmb ja mbër mu mag moo gis mbër mu ndaw moo koy déjjati abdu Diouf gannaaw ba ko Gris Bordeaux numéro 2 daanee la yëgle ne fi mu toll nii nag moom takk na ay kaakam ak ay bagage am ak ay kaakaakam yépp nee na day bàyyi làmb ji ba ñu laajee magam ji nga xamante ne bii mooy Arona sàll di coach yi waalo dafa dëggal li nga xamante ne bii moom la Abdou juuf wax nee na Abdou Diouf fi mu toll nii daal mën nañoo jàpp ne bokkatul ci mbër yi nga xam ne dañuy takk seen ngem di mbër. mu ngi doon nag tey jii nag di mercredi bi Mbaye du ñëw ak Koña numéro 2 seen combat bi dana amee waaye nag lañ cee wax relance lay nekk wala confirmation. relance lay nekk wala confirmation ci ki nga xamante ne bii moom mooy caatu Daouda Fall ak Kaw Gourdin ñoom ñaar ñii ku ci nekk poule ba nga nekk yaay première ku ci nekk am na. trois points ñi war a ñi war a ñi nga xamante ne bi dañoo war a ñëw wane seen bopp nag mooy Albarka Kayré ak ki nga xam ne mooy Yankaw Junior parce que ñoom ñooñu dañ leen a yaakaar ci tournoi bi ñoom ku ci nekk euh, sa contour marqué gul dara zéro point yi nga am wante dina am combat bu neex ba nga xamante ne bii diggante Ronaldinho lay doon ak euh, Koña 2 yi daal di ñing borom ñing production moo taxawal moo taxawal loolu tey lay am defe naa allah yaa fa war a dem tey ji mercredi yow moom yaa fay dem <laughs> caat la combat ba ne am la 11 incha allah caat bu booy bambara ginnaaw ma jógee États-Unis war a bëri la 11 mu nga tëq nag nga xam te ne mooy adversaire am di Modja nee na ko la ma lay xamal la mooy boo xefee boo ñibbi sa kër kaw ngay ñibbi. waaw ah, dóor mu daanu dóor mu daanu ah, loolu la wax dóor mu daanu dafa mel ne dafa bëgg dafa xew temps yi dafa bëgg xew mi ngi noonu loolu la wax Modja waaye Modja mbër la ba nga xamante ne bii nandite la yaakaar naa dóor ko mu daanu moom beneen affaire lay doon gannaaw ba mu jógee États-Unis nee waajal naa combat bi bu baax a baax entraîné naa boxe entraîné naa li nga xamante ne bii moom mooy physique wante fi mu toll nii li may yëg ci sama yaram mooy arbitre soufflé génn sama diggante ak Modou Dia ma daal di koy daan mooy moom moo wax loolu ki nga xam ne moom mooy caat bu booy bambara nee na nag li tax ma jël combat bi mooy sama papa booy bambara mu génn àdduna dama jël combat bi ngir am ci victoire déjee ko li nga xam ne moom mooy ndam li noonu lay rek war am victoire nag di nga xam te mooy Nandi Fall Nandi oh. Fall ginnaaw bu mu jógee 4 défaites la tegle benn ñaar ñett ñeent oh. war a bëreel nag mooy plaqué risque gros la muy nag bari na lool ci kanam xale boobu jàppandal nekk fële ca Kaolack ndangaan moo taxawal journée boobu le incha allah war a am nag saison bii di ñëw la war a am jàppandal production dafa woo fukki mbër ak juróom benn foofu ci Kaolack ndangaan ci benn restaurant eh, pour jox leen li nga xamante ne bii mooy seeni avance wante ca la boole plaqué ak ki nga xam ne moom mooy Ndandi Fall wax nga ko Ndandi Fall moom tamit nekk ci ay tolof tolof yu metti nekk ci ay jafe-jafe yu metti euh, jour boobu nag mu war a ñëw euh, andiwaat leneen la nga xamante ne bii da ci jëlee ndam ngir war a bokkaat ci làmb ji ngir relancer wu ndax plaqué la war a bëreel wante bul fàtte ne plaqué fa muy bëreeg moom di Kaolack ndàngaan mosu faa daanu. mosu faa daanu. ma ngi noonu nag ginnaaw ba nga xam ne Général Malick nee na ko tub tubee fàtte naa la sama kanam ka fa nekk mm. ni ñu koy waxatee tombee war a ay gaaf Gris 2 ñëw Gris 2 laa soxla sama kanam sama bët daal ci kanam laa ko teg Mbaye Babacar waaw ah, nee na fi mu toll nii saison blanche moom waruma koo def ndax man mbër laa ba nga xamante ne bi dama bokk ci làmb te waruma toog atum limm du ma bëri Général Malika moo wax loolu mi ngi ko yëkkatee dimanche passé fële ca arène national ba Gris di bëri ak Abdou Diouf loolu moo tax mu ne combat Abdou Diouf ak Gris 2 ci daan da war a bëri ak man kon Gris 2 moo daan nee na Gris moo war a bëri ak ki nga xamante ne bii moom mooy euh, général Malika ndax pare na te fi mu toll nii yaramam. bëri kese lay laaj mu ngi noonu lu mu bëgg la bër bëgg ginnaaw ba Gris 2 di tëxu la dëgg yor numéro 2. Hmm. général war na ko bu am na tëb. waaw sur lañ ne dañuy daal di dem li nga xam mooy journal les arènes. Hmm. les arènes comme yi xëyee nag la B52 de Mbour di bombardier ma ngay fëgg dina li tëxu Balla Gaye 2 nee na ko. waat sax de dafa waat. waaw je jure dinaa daan Balla Gaye numéro 2 lan yoonu Guédiawaye. dafa dafa bokk ci mbër yi nga xamante ne bii nag dañoo gëm seen bopp. te eh, ñoom xamuñu round d'observation maanaam arbitre soufflé ñuy taxaw di la may benn battement ba nga xam ne dañ lay bàyyi ngay calculer ñoom bu arbitre soufflé rek dañuy dox ci sa kaw. waaw prix la koy def. waaw noonu lay noonu lay bëree arbitre bu soufflé rek moom day dox ci sa kaw mais Balla gay tamit noonu lay bëree. mu nekk ñaari attaquant Bombardier na ko foo man di jaar dinaa la daan ndax. xam nañ ne gannaaw bala bala Aziz Ndiaye di jàppale ñëpp d'accord nañ ne Aziz Ndiaye da lay jàppale côté financièrement mais Aziz Ndiaye lu mu métti métti ci gannaaw lay taxaw. man ak yow ñooy dugg ci biir géew bi te bul fàtte ne Balla Gaye Aziz ba ma lay daan. asinjaay Ndiaye mi ngi woon sa gannaaw di la jàppale te mënu ci woon dara. moo tax mu ne ko Aziz di la jàppale mënul tee ma daanaan la. <laughs> Mbadou ñu koy wàllum piir la wala teen. wàllum teen. lu mu metti metti gaa yi ci biti la ñuy taxaw. Balla Gaye numéro 2 na loolu leer nee na ko aussi na Balla gay 2 nangu titre Modou Lo. waaw nee na ko nee na ko mbër yi il faut ñu honnête xam naa nag moom bi muy wax loolu Balla Gaye 2 la doon joxoñ baaram parce que Balla Gaye moom mosul nangu ne ki nga xam ne moom mooy Modou Lo mooy roi des arènes na nee na mbër yi nañu honnête ànd ak ngor te nangu ne ki nga xam ne moom mooy Modou moo jiitu ci làmb ji jamono yi ndax moo yor titre roi des arènes. mu tourné waat ne pourquoi pas Balla Gaye mënu nekk empereur dans l'arène waaye ku daan roi nag lan ngay doon tam Mbaye Babacar jàppale ma. waaw mais ku daan roi ku daan roi kooku Balla Gaye mën naa taxaw ko neexee mën naa taxaw ne Modou Lo du sama roi parce que daan na ko ñaari yoon mais li li am daal mooy Lo moom la ko nangu ku nangu ak ku bañ Modou Lo moo fi nekk. nañ nangu nangoo gën a yomba ci noonu la demee rek journal record. journal euh. record nag xale ba la xëyee vainqueur de Ndongo Lo samedi passé Cheikh Tidiane l'étoile montante de la mm-hmm. xale boobu tànk instant bii damay baabu moom daal mën nañu wax ne dafa def 10 sur 10 juróom-benni combat la am ci arène bi juróom-benni combat yépp la daan 6 combats 6 victoires di mbër ba nga xamante ne bii avant mooy dugg ci arène bi dafa toj li nga xam ne moom mooy tournoi lutte traditionnelle yi. jël li nga xamante ne bii mooy drapeau chef de l'état ay yoonu yoon jël li nga xamante ne bii mooy tournoi CEDEAO ay yoonu yoon soogaa dugg nag ci bëre dóor bi. di confirmer xam nga bu fekkoon dafa nekk ci bëre simple bi sax di wane ay preuve am ñëw ci bëre bëre bi di def colopin colopé colopan mën nañu wax ne day taqale mais la muy def fee moom lay def fii ki nga xamante ne bii moom mooy Cheikh Tidiane Niang mbër la ma nga xam ne kuñ jox sa avance am. say mbokk duñ nelaw. dégg naa temps yi moom la Bamba di laaj. <laughs> waaye sa bax ba ngeen jël da ko fooyi kaay man loolu laa bëgg a xam Cheikh Tidiane Niang Bamba léwaatoo bu neex la nga xam nga man combat dama ciy bëgg damay bëgg léwaatoo bu neex mooy mooy mooy tolloo tolloo taxawaay hmm. bu taxawaay yi tolloo rek léwaatoo bi day neex te Bamba ak Cheikh Tidiane ñaa dañoo tolloo taxawaay moo tax léwaatoo day dóore te Bamba américain la noonu laay def dañ koy jaajëfal bu baax moom moomo man mënuma jëw sa neex moom moo Mbaye Babacar di ko bég ci moom bu baax a baax lan ngay tàggatoo de. jaajamal jaajëfal ñëpp dig leen daje incha allah bu ci yàlla àndee yàlla yàlla dolli jàmm maa ngi kontaane bu baax a baax suñu xarit yëpp yi nga xamante ne bii Leewtoo TV la ñu jàpp jàpp jàppanteel la ngir di fi euh, jële li nga xam ne moom mooy information làmb yàlla na seen jàmm yàgg di leen ñaanal tabaski jàmm ak salaam ñi amagul xar yàlla nañu am xar ñi amagul greffage cheveux naturel jigéen ñi yàlla na leen ko yàlla may wante bu leen baraan ñu nga xamante ne bii nag amaguñu jees neer tamit comme sama genre man amaguma xar amaguma jees neer amaguma buum. ma ne ah loolu seddul de. dama dama dal seddul. mais Pape Thialis Faye ngi fi le grand promoteur promoteur de tous les temps Pape Thialis Faye. Ah, dina def différence xar wala ma toll ñu buum. jot na de non non xar ak buum. buum kese noonu. Ah, d'accord xar ak buum damay kontaan ci ñu moom bu baax a baax mu mbay baax di bég ci moom waaye damay sant di sama équipe bi. faama bég naa ci yow Bamba mon papa damay kontaanee la bu baax a baax naan la ñaan la jàmm ju bari naan la waxal sa xarit nekkoon ko moo ñu gën a xam tabaski baa ngi ñëw hmm? di bëggee Aïda Diouf jufa ñu ko bàyyi sama xeese boobu sama séré bu nice bi bég ci moom bu baax a baax mañ pro kenn du yow sama chauffeur bi waaye sama caméraman bi moom moom maa ngi demee bég ci moom di ko jaajëfal bu baax jox leen di daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV bëreeg moom Yékini si ñoom Tapha Tine attention. ñaar Sa Thiès xeex na ñoom ñaar Sa Thiès boo na ko mot na ko yor. ñoom ñaar Yékini Junior wàcc na jël na Tapha Tine na Tapha Tine ngi dóor ci suuf. attention Sa Thiès ak boo ñaar ñoom ñaar xeex nañu ñaar xeex nañu attention kaw Sa Thiès boo daan na